au moment où je vous parle, nos petits gars lâchés sur le stade de Tunis face à l'Éthiopie. La Tunisie qui venait de battre l'Éthiopie par 3 buts à 0 avait une avance de 3 buts sur nous. Et lorsque notre équipe est entrée sur le terrain, le public tunisien qui était compatissant se disait, alors que nos petits gars étaient transis de froid, que les Sénégalais allaient entreprendre une tâche insurmontable et qu'ils allaient y laisser des retrouvant justement ce diome sénégalais, cette fierté légendaire, nos 11 petits gars se sont lancés à l'assaut des de camps éthiopiens et après 60 minutes de jeu, le sort de l'Éthiopie était définitivement réglé. L'Éthiopie baissa les armes et le combat cessa faute de combattants. mbokk yi démb salaamaaleykum tey dañuy duggaat ci néegu Alassane Ndiaye Alou xam ngeen 6 fu mu ñu fekk ñun ñi nga xamee ni euh, dañ di ay moroomu doomam euh, fu ñu six août fekk suñu xel dana dem ci Alassane Ndiaye Alou gis ngeen ñaari image yi ngeen gis nii 35 euh, ans dafa dox seen diggante à gauche sur votre gauche Alassane Ndiaye Alou ah 35 ans après xaritam bi di Cheikh Ablaye Dieng di ko rendre hommage tey jii ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci seen këru dëkk. Cheikh ablaay Dieng avant muy fekki Alassane Ndiaye alu ci kuru dëggam dama ko fi invité ci benn 6 août bu nga xamee ni dama ko ni Cheikh ablaay Alassane Ndiaye alu xam naa ni ngeen demee woon da ngeen defandoo xaleel di jàngaleendoo ci benn école di fa jàngaleendoo di ànd ba sa 1976 bi yàlla ñëwee fekk Alassane Ndiaye alu ci 52 ans. dem bàyyi la fi loolu moo indi ñaari image yi 35 ans dox seen diggante parce que 35 ans après photo bi ci la Cheikh Ablaye Dieng ñëw rendre fi hommage Alassane Ndiaye Alou ba pare nag fekki ko Alassane Ndiaye Alou mu ngi dem en 1976 Ablaye Dieng mi ngi dem en 2011 moom mi nekk tey jii ci seen droit ñu ngi ci seen këru dëkk bi mu laata dem nag. rendre hommage Alassane Ndiaye Alou tey bi ñu génnee ci 6 août bi nga xamee ni dafa di date bi Alou génn àddina ma ni Cheikh Ablaye Dieng tey yaay ñëw waxtaane sa xarit loolu moo indi ma delloo si émission bi en hommage et à Alassane Ndiaye Alou et à Cheikh Ablaye Dieng bi nga xam ne dafa di xaritam te tey jii fekki ko. asalaamaaleykum. Dieng maaleykum salaam. jërëjëf euh, Ablaye Diaw. maa ngi lay sant tey itam di la gërëm bi may jógee léegi ci Elisabeth Grace dama wax ne waxal ma au nom de la famille ne maa ngi gërëm Ablaye Diaw ak Youssou Ndour ndax taxaw bi nga xam ne taxaw nañu ko Alassane gis naa ko famille bi yëg na ko ñëpp ak doom yi ak ñëpp ñëpp yëg nañu ko. wax nga dëgg sama xarit la. sama xarit la gis naa un grand philosophe qui s'appelle Cicéron nga xam ne c'est un grand orateur. wax ne.

ñi nga xam ne tey moo leen meññ. waaye xale yi ba ma leen di wax parce que xale yi bi ngeen ñëwee ñoom ñëpp maag alsan ñoo leen ànd ngénte leen. est-ce ci mu ngoone ba ki mujj waaye ba ma leen bala ma leen nuyu ma nuyu seeni yaay Elisabeth Grace. Kiné Ba ñii ñooy soxna ñaari soxna yi Aliou Baye est-ce que à l'ombre des grands hommes il y a de grandes dames exact à l'ombre des grands hommes mm-hmm. il y a de grandes dames est-ce que l'histoire dit s'il n'y avait pas Khadija Bintou Khuwaylid derrière le prophète mm-hmm. peut-être le nouveau message de Dieu aurait-il réussi sa mission mais non sans difficulté. Exact. Elisabeth Grasse à Kineba, je suis bien placé pour le dire. Ils ont été, ils ont accompagné Alsan. Ils l'ont soutenu discrètement, mm -hmm. efficacement jusqu'à son dernier retrait. Est-ce que son dernier soupir. Est-ce que yàlla mi mën a fay yàlla na leen yàlla. amiin amiin Dieng amiin Dieng. alors je voudrais également en associant associant euh, à cette émission là sa famille. ne va pas oublier ses enfants. et son dernier fils qui est né quand il est mort et donc Kineba est la mère son fils là on lui a donné le nom de Alou. Ah. caatam papaam lañ ko tuddee. ko tuddee est-ce ko ko duppee dañ ko duppee voilà. parce que dafa fekk mu dem. dafa fekk mu dem. est-ce que il n'a pas. Alou n'a pas vu. Alou n'a et le gosse ne connaît pas Alou. est-ce que. ça c'est c'est loolu laa la doon wax. jërëjëf jërëjëf wane na ne ces enfants là. Euh, doom yëpp aujourd'hui dans la voie tracée par Alou. c'est un grand père de famille. gis ngeen de ki ma jëli. Euh, comme alu nekk fii tey bu fi alu nekkoon dama koy jëli mu toog fii waxtaan nekk fii man damay jëli xaritam 1948 lañ commencé di ànd ñoom ñaar dama ci sama gëstu yëg naa ni 1948 ci école champ de course directeur ba tudd Babacar Ndiaye Wack ci bureau ngeen daje 1948 bi ngeen di ànd mu nekk loo xam ne dafa ubbi seen ànd ba 76 bi ko yàlla di moom euh, balaa may soobu ci volet sportif bi foog ma ñëw ci sa daje ak Alou ba ngeen di commencé di ànd. tu as raison euh, nous nous à l'école du champ de course. cette étape est intéressante. Mm-hmm. et ça aurait pu faire des émissions des émissions. <laughs> yaa ngi évoqué une grande figure Babacar Ndiaye Wack. Mm-hmm. c'est un nom. qui lie à l'histoire de notre pays. Tous, nous devons notre formation. C'était votre directeur au champ des courses. C'est notre directeur. Mais je me rends compte aussi que Bobo Temps allo xale la. parce que boobu ñu ngi am 23 ans. Euh, euh, ah. euh, nekk un homme boo xam ne bii soo nee Vieux Babacar Ndiaye Wack da ngay daal di xalaat le Vieux Abdou Camara. Mhm. après ñoom Louis Camara. waaw le Vieux Ndiarmi aussi Cissé. daal di xalaat Papa Gueye Fall. Papa Gueye Fall waaw. service d'enseignant Ablaye Fofana. Mhm. Moustapha Diagne. Mhm. ñooñu euh, c'est une race d'enseignants boo xam ne bi de pour nous ce sont des écoles. enseignants démb yaa ngoog. waaw génération Pape Fofana Alassane Ndiaye Alou. te xam nga euh, Pape Fofana ak Alassane Ndiaye Alou ak Cheikh Ablaye Diagne mi nga xam ne dafa ànd ak Alou depuis 1948 dañu dajewaat. en 1967 ci loo xamee ni keroog la Sénégal gën a sopp alu diggante du jaar Senghor euh, ñàkk déggoo ba emporté alu Senghor soxlawaat ko en 1967 pour battre la Guinée keroog bi alu war a dellu si Cheikh Ablaye ci ñi convaincre Alassane Ndiaye pour mu ñëw reporter Sénégal Guinée du 19 mars 1967 yaa nga ca yaat Pa Ablaye Fofana. maa nga ca mais <laughs> xam nga xam nga xam nga dafa nekkoon lu xaw a jafe. ndax wax naa la ne alsaan euh, foofu sax da nga ma indi ci li nga xam ne moom la nit ñi bëgg a dégg. waaw après danay dellu si école Jean Cours. waaw. waande soo gisee Sénégal Guinée ak la xew. ca jamono. Mm-hmm. nga seet ne diggante ca jamono Senghor ak Sékou Touré. Mm-hmm. la xewoon. waaw. xale yi dem Guinée ñu gagné leen. waaw 3-0 ñu dellu nga seet ni booba Sénégal yëngu na diggante Senghor ak Mamadou Dia. Mhm. ku ne xamoon na ni Alsaan ki nga xam ne moom la àndaloon mooy Mamadou Dia. Mamadou Dia. xam nga moom kii sa devise. Mhm. Alsaan c'est celle de l'armée. est-ce on nous tue mais on ne nous honore pas. Mhm. il a toujours privilégié l'honneur aux honneurs la mort à la honte. est-ce que wax ne ma. Mhm. su dee jotee su dee jotee. Mhm. su dee jot. Mhm. lu dee rek dee la gën. Assane était une école de vertu morale. est-ce que. ñu ngi lay keroog boo ko nee ah, Sénégal de soxla nañu al. soxla nañu ci Sénégal Guinée ba. waaw te Senghor ni pas foofu na bu àdduna ngoo ñëw na ñëw. waaw. ma ñëw boobu ñu nga nekk ca kër yaayam la bi Fagey fa ñu ayoon ñëpp. waaw kër mère Fagey ba. waaw waaw yaayam Fagey Fagey ba foofu ñu ne. alors suñu ñëwee Dey Keba Mbaye moom la yebal ci yow mais en en plus du message de Keba nga xam ne vous entretenez des relations il y a mon message mu ne ma je t'écoute ma ne la vie est Fagey mu ne Keba nee na diggante Mamadou Dia ak Senghor. jarul réew mi. est-ce que. muy benn. <laughs> est-ce que réew mi ñoo la soxla. oui. ko réew soxla. Uh-huh. ne demal. Uh-huh. demal wuy ji mi. loolu ma Keba wax di waxal alu de ma part ne nee na ñu koy demandé faire appel mu dem def reportage bi eh bien le def na ko keroog. maa ngi wax wax dëgër yaayam ree ñu xëccoo maam wax ji parce que il est parfois quand su est sur une position il est rigoureux très alors c'est vrai bi mu ko defee à partir de ce moment-là ma ne ko moo ko waxoon vieille faago ma alors koy sama yoon nekku ci seet leen rek ma ni ko ah maire kii foog mu dem mhm. foofu nag ma ni ko gis nga xam nga saway xam nga tu es très élégant waaw te gars yi nag dafa mën sañ si gars la. ma ne ko nag le costume bleu. ah alors alors avec la cravate. oui oui yaa ma dégg la belle simulation blanche ak les cheveux bien <laughs> alors coiffure Ndoye Matar. Ah. <laughs> alors man man nga tey micro bi ba de ba ici alum ne ma yow. def na ko keroog mu ma yow gis nga. tu es tu travail boo xam ne. Cheikh xaw ndax yaa nga ci stade ba. avant match bi moo dàq match bi. j'ai suivi le match de chez avant match bi waaw. coup d'envoi 17h. waaw 16h30 mu jël antenne bi. waaw bi neex na avant le match. am na fa fan ñëw ni ko allô je viens te voir c'est pas ton doyen enseignant qui vient wala sa war ko def mais je viens parce que j'ai j'ai investi d'une mission de la du gouvernement. Mhm. gouvernement bi nee nañu dañ la demandé nga accompagner une tâche républicaine. pas foofu na loolu la ko wax. waaw foofu na waaw. nag ma demande personnelle. mu ne ko doyen mu ne ko mu ne du ma la du ma la bañal dara. est-ce que. je donne mon accord. et le 19 mars incha allah je viendrai. waaw et le Sénégal va gagner. keroog micro ba ña nga ko teg ca booru touche ba. waaw fil bu gudd muy jaabante ci touche bi. waaye gis nga jaabante boobu. Ah. la mu jur ku ne gis na ko. Alsane c'est un grand africain. c'est un grand patriote. c'est un grand sénégalais.

ils commencèrent à vilipender nos joueurs. Mais ceux-ci, trouvant dans leur diome sénégalais suffisamment de ressources pour tenir tête à ce troisième adversaire, inscrivirent par Niamatar en l'espace de trois minutes deux buts d'excellente facture. Alassane Ndiaye lu waxtaanee nañ ko tout à l'heure ak Mamadou Dia par fidélité à Mamadou Dia il a même refusé euh, d'être ministre euh, Motine Cheikh Ablaye Senghor bi mu ko jéemee récupérer après ce Sénégal Guinée euh, mémorable ñu gagné Senghor jéem na ko récupérer maa ngi fàttaliku Abdou Seye Seck nee na ma ànd naa ak Alou ca audience ba mu bañ toujours na ngeen gisee bañu Alou bi ko Senghor jéem a récupérer yéen ñu doon xaritam. mais li ma la wax mooy il a dit wax na ko xaritam intime Mbaye Mbengue. Mhm. parce que parce que Mbaye Mbengue c'est de la promotion de Alou Mbaye Mbengue. oui ambassadeur. Mhm. il est de la Sénat. oui qui est un, un esprit brillant et, et, et très c'est même un complice d'Alou. est-ce que Senghor daf ko yooyu il voulait lui faire de lui un ministre il a refusé. il a refusé mu ne si j'accepte le poste de ministre mais qu'est-ce que je vais dire d'abord à mes enfants à mes enfants parce que le legs le legs c'est un homme qui était vertueux il dit le legs ce qu'on peut laisser à ses enfants il est peut-être financier. Mmh. mais il est essentiellement moral. mais nag sous Senghor il a été aussi directeur de Radio Sénégal. mais parfaitement. a de Radio Sénégal. C'est dans ce qu'il a été limogé. Et je crois que euh, quand euh, tu parles de ses rapports avec Mamadou Dia. Alou est décédé le août C'est ce jour-là qu'on enterrait la, la de Aladji Moussa député. Alors, nous, nous, on était à l'enterrement du matin quand Adim Batrambeng, ancien ministre. Oui. Qui notre ami parce que nous étions là chez Allo tous les jours. Parce que Badou, il enseignait comme nous à l'école de Sandekous. Mm -hmm. Très lié, ancien ministre d'État, très lié à Alou. Et Mbeng qui, m'a fait comme ça à l'épaule, qui m'a dit yëngali xew ma ne ko non mu ne ma ah Alsaan jóge na fi ma ne ko Alsaan man mu ne ma ah ñaata Alsaan xam notre Alsaan. Mhm. dara jotu ko et on l'a à l'hôpital puis ngeen gis def li gën. c'était des c'était des moments yoo xam ne kenn mënu ko wax kenn. Ah, ndekete. moo yóbbu boppam hôpital. déedéet c'est ah, ah, euh, euh, un des amis. ah d'accord amené. un des amis. ki ki amené en sa alors et ça me rappelle immédiatement quand on a enterré qui est extraordinaire ndekete un de amis qui me dit à chaque fois ma jéem a njaay il me rappelle souvent que la mort était la plus grande défaite de l'homme la mort est la plus grande défaite de l'homme. Ah, ma ne ko tu as raison. Et peut-être la seule défaite de l'homme. La seule, la seule défaite de l'homme. Parce que nag à Dieu nous appartenons. Eh. et à lui nous retournons. xaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. est-ce que. parce que dafa nekk koo xam loo xam ne ni xamul xaalif de ceci xamul xaalif de dara et eh bien il frappe à n'importe quel point. Mm-hmm. c'est c'est c'est cette c'est cette mort là qui a emporté Alou. Mm-hmm. et quand tu parles de Mamadou Dia. daf euh, fi xajul. xaju fi kay. xaju fi mais le texte l'hommage parce qu'il y a eu beaucoup d'hommages des témoignages qui ont mhm. mais le, le le le témoignage de Mamadou Dia. ci Allou ci ci Allou. Mhm. à sa mort. Mhm. c'est un témoignage unique. gars nañu Mamadou Dia dafa ko yéene woon. pour la première fois aura vu les larmes couler sur le front de Mamadou Dia. Mamadou Dia waaw est waaw na naag ba tey ànd naag Aliou ba tey voyage officiel. ah du Mamadou Dia ànd naag Aliou ba tey euh, gannaaw Mamadou Dia gannaaw Senghor Aliou euh, Mobutu demandé na ka à le rencontrer. jaar na sax ci Mobutu yàgg na ci Mobutu Congo yàgg na fa lu yàgg na fa euh, demu Congo bi na naka naka la loolu ñëwee. gis nga gis nga Ablaye. waaw la page Aliou. est une belle page. exact. suñu Fallu Mbàkke dafa wax ne. radiyallaahu e dafa wax ne. nee na su ndey gërëm. su ndey gërëmee bay gërëm. Mhm. am nga cere am nga ndawal ñeex foo dem fekk ko. am nga cere. am nga ndawal waaw. ñeex fa dem fekk ko. ñeex fa dem fekk ko. loolu suñu Fallu ne.

avec ses épouses et ses enfants. ndeysaan et quelques rares amis. ndeysaan. alors ndeke yaayam ne ko alsaan mu ne ko waaw alsaan mu nekk waaw mu ne ko ni nga seetlee sama xol bi de. Mm-hmm. bu yaakaar ne moom yàlla du la fay de. est-ce que. yàlla dafay fay yàlla dafay fay. est-ce que dafay métti rek. Uh-huh. waaye di nga dem ba ni alhamdulilah rabbil alamin. Mm-hmm. et c'est ça qui a été le fruit de ces rapports avec Mobutu. est yàgg na ci Mobutu. waaw te nag Mobutu daf ko gëmewul woon. Mobutu. moom moom Mobutu. waaw gëmewul woon Alou. déedéet mais ab Mobutu xamee Alou ba di ko mais mais Ablaye Alou ñëpp ko xam. est-ce que. à travers sa plume. waaw dégg nga ñu la plume d'un savant vaut plus que le sang du martyr. est-ce que. la plume du savant. oui. vaut plus que le sang du martyr. émission bi tey Alassane Ndiaye ànduma ko moom mais comme nekk fii xaritam laa indi 1948 la ànd ak moom ñu bokk école di jàngale tudd na seen premier directeur Babacar Ndiaye Wack ca champ des courses ñu nekk ak boobu xale yu tuuti la ñu parce que alu 23 ans la am euh, am na ñoo xam ne bi ma leen ne tey dama indi Cheikh Ablaye Dieng ci émission bi xaritu Allo dafa am ko di ma Ablaye ñun suñu bëgg sañse ci ñooñu lañ koy gisee. mënuma laaj ko instituteur bu ñuy wax ay nii na ñas. laaj ko Mangone Seck. ah, ah ay nii na ñas Mangone Seck Alassane Ndiaye Allo ak Ablaye Dieng mi toog ñoo dàqoon solu nee nañu. ci enseignant yi woon ci biir Sénégal ba seeni élèves dañ leen daan roy. am nga ci fàttaliku. Oh, bu baax a baax <laughs> euh, euh, euh, effectivement. gis nga euh, soo demee sëñ Aliou Cissé. Hmm. Euh, article am boobu mu def sur Allo euh, mi ngi ñuy mais ay nii moom il est la promotion de Allo. ay nii ñas waaw de de à l'école normale. oui parce de sa promotion. Mangone. xanaa moom la tuddee doom ji Mangone. voilà moom la tuddee te soo gisee mu tuddee que loolu ils ont été ensemble dans la même école à Faidherbe ils ont enseigné à Faidherbe quand Allo a quitté le Sonacous parce que Mangone était un maître modèle. Ngoné Seck. Abdou dafa dafa amoon ci moom un faible ndax ni mu mënoon a jàngale. ndeysaan. il cinquante élèves à au concours d'entrée à à de la Fosse les cinquante sont reçus. ñëpp cinquante cent pour cent. ñëpp ñëpp te le classement se faisait au niveau du Cap-Vert et bien d'abord et par ordre de mérite. est-ce que. c'est le cas de Alsane bi Alsane Ndiaye mi. Mm-hmm. quand il quand il et eh bien et eh bien au CM2 su présenté quarante wala cinquante ñëpp ay admis a pas d'échec. est te nag te nag soo gisee euh, soo gisee mu tudde ma ngoone doom c'est pour des raisons profondes mooy doomam ji kii a joué Bax def bi def cinéma Bax. voilà e-, exactement. donc voilà c'est pour dire donc que euh, quand Mobutu soo jàngee bingo. waaw quand mu ne Mobutu je vais euh, un reportage sur les Zaïre. wut nañu ko. je veux que vous veniez aux aïeux. Et il a fait un grand reportage. Mm-hmm. sur Mobutu et sur les aïeux. Euh, Cheikh Ablaye. prestance su Aliou. dafa mel ni que daf ko doon parce que ku Blaise Diagne di seen nijaay. Ah. ak Lamine Gueye. Mm-hmm. mënuloo mel ne leen ñu ñu Alassane mel euh, euh, Alassane Ndiaye Aliou naka la bokk ak Blaise Diagne ak Lamine Gueye. jërëjëf moom yaayam mooy aji faage yi Bafa. yaayu Aliou waaw. waajuram bu góor mooy alaaji Tumaane Njaay lamin Gueye maître Lamine Gueye ma waxoon léegi sëñ nga waxoon ci moom. waaw le premier avocat d' Afrique noire. waaw docteur en droit depuis 1921. waaw kooku mooy nijaayu Alsaan. parce que mooy ci côté papa ci côté yaayam. parce que mooy frère. Fagey Bafa Fagey Bafa. mi jur Alou mi jur Alou waaw. Lamine Gueye ak Fagey ay doomu baay ay doomu baay lañu. tandis que. Blaise Diagne waaw député noir premier député noir d' Afrique. Mhm. Euh, kooku. Papa Raoul jaañ mi nekk suñu premier entraîneur national. exactement moom ak góor gi Toumani Ndiaye mi jur Alou ñoo bokk benn ndey. Blaise Diagne ak Alou bokk benn ndey. déedéet Blaise Diagne ak ak Toumani Ndiaye. Toumani ñoo bokk benn ndey. Blaise Diagne ak Toumani Ndiaye ñoo bokk benn ndey. jigéen ñi wax ñaañu Antoine moo leen jur ca Gorée. ñoo bokk benn benn ndey donc Alassane ne pouvait pas. Euh, nekk koo xam ne kii dafay yox yox te nag euh, il aimait les il aimait ce que il aimait les défis. émission bi mënoon na door mënoon na durer ay waxtu waxtu waxtu ay waxtu. mais euh, ah Cheikh li ma bëggoon a wax ko rek. balaa ñuy tàggoo waaw balaa ñuy tàggoo. Hmm. moo di boobu defe naa ne beneen yoon lañ koy def sur alu. foog ñu dellu si. waaw foog ñu dellu si parce que kii moo gàtt. mooy gàtt parce Euh, le président Mamadou Dia. Ah. document bi mu bind ci àllu témoignage am. waaw kenn du ko sorox soroxal déedéet. fokk ñu mën a toog reprendre àllu yaatal waxtaan wi ba ñu mën a dugal le président Mamadou Dia loolu mu wax ci àllu. dañ koy defaat Cheikh Ablaye. waaw parce que loolu moom. dañ koy defaat dama nekk à ta disposition. may waxaat nag ne. waaw bi c' est une émission euh, sportive elle est de deux. sportive et culturelle. jërëjëf Dieng. Et la prochaine émission que je te propose, parce qu'il y a une lacune wow. au niveau des différentes radios et télévisions, le volet culturel est sacrifié, exact. il n'existe pas. Exact. Il faut Ablaye que tey on a parlé de Allô, mm -hmm. 30e anniversaire, ça doit C'est bref, nous avons il est difficile le personnage Allô. Mm -hmm. C'est difficile personnage, mm-hmm. mais que les gens retiennent de lui qu'il fut un grand éducateur. un grand Sénégalais. Il fut un grand Africain. Il fut un homme de résistance. Il fut un homme attaché à l'honneur plutôt qu'aux honneurs. su ma defee l'œuvre de Allou, c'est une œuvre colossale et multiforme. Qu'est-ce que... Elle mérite d'être d'être soumise à notre jeunesse qui a besoin de repères. Et c'est ça dont nous avons besoin. Et demain. Mm. wax naa sànq ne la. Mm. à côté des grands hommes, il y a toujours des grandes dames. Il y a toujours des grandes dames. Et ces femmes de l'air, et je reviens, c'est une page belle de notre pays. Alou a écrit là-dessus. Il faut, Ablaye, que je t'en supplie. Oui. Il faudrait que la prochaine, ta prochaine émission, que nous la consacrions aux femmes de l'air. Danaa ko def Ablaye. Ah, et je, et je, la conception que j'en fais, faisons venir Samba Seck. Waaw. du Waalo. Faisons venir euh, Samba Diabaré. Taoubri. Hmm. avec leur xalam. jërëjëf. et ce jour-là nous verrons ensemble le début gis naa kuy yëg boppam ci waxtaan wi Aziz mbay mi ngi ci biir kër gi. Hmm. Aziz Mbaye. sama nijaay Ablaye Cheikh Ablaye Dieng. Hmm. loolu mu wax gis nga ci sa bopp di nga ci dellu si mais Ablaye bala may tàggoog yow. yaak Abdou Diouf fu ngeen daje. c'est très simple. Euh, c'est l'ancien président de la République. c'est mon ancien élève. Abdou Diouf da nga ko jàngal. mais bien sûr. ban <laughs> classe.

C'était un... Il était diminué physiquement. Mm -hmm. Sa femme tenait le CM2B. Mm -hmm. Nous, on est en troisième année. La femme tombe malade. On prend un élève de troisième année pour des raisons que seuls les professeurs savent. Oui. C'était moi. Alors je tombe dans cette classe-là. Il y avait Abdou Diouf, il y avait, ils étaient deux Abdou Diouf d'ailleurs. Wow. Il y avait l'autre était inspecteur de la jeunesse. Oui. Euh, et Abdou Diouf, il y avait les euh, chers, chers Sidal Gueye. Euh, il y avait la capitaine euh, le Pape Bore Diagne, mhm. et cetera. Et un jour, euh, quand je faisais une leçon modèle devant mon frère, qui, sont contrôlés. Mais ces gosses-là, je les ai pris. Madame, ma, est rentrée en France au mois de février, mars, et j'ai, les gosses, j'ai terminé l'année avec eux. Ils, étaient, ils avaient réussi à l'entrée en sixième de façon brillante. quand tu viendras dans mon salon, tu verras deux photos qui sont signées par Abdou Diouf, l'une de 95 boppam laa for ci moom laa fore li mu da ko doon jàngal nga ko. def CM2 ak entrée en ko jàlle kon boog mi ngi nii tey jii ñaar ñi ngeen janool dañ di xarit ànd à vie li waral jataay bi Alassane Ndiaye Alou dafa génn àddina. en 1976 xaritam bi Cheikh Ablaye Dieng mi ci waxtaan wi génn àddina en 2011 bi Aliou génnee en 1976 àddina am 52 ans ñuy dem jamono di dem ba ci télévision bi ñuy fàttaliku Alassane Ndiaye Aliou parce que jataay bii ngeen gis ci TFM rek ngeen ko gis et Cheikh Ablaye Dieng mii nga xamee ni moo waxtaanee Aliou. ñaari image yi ngeen gis ni 35 cinquante dafa dox seen diggante parce que bii ak Aliou c'était en 1976 bii ak Cheikh Ablaye Dieng c'était en 2011 Cheikh Ablaye Dieng ñëw fi waxtaane fi Alassane Ndiaye Aliou ba pare dem fekk ko ci këru dëgg tey jii ñoom ñaar ñëpp ay royukaay lañu moo tax kenn du leen fàtte ndokk yàlla ba nga xamee ni Cheikh avant muy fekki xaritam Alassane Ndiaye Aliou daf fi ñëw waxtaane ko kon tey jii ñii la leen ñëwoon démb indil. Alassane Ndiaye Alou wuy ji boromam 1976 Cheikh Ablaye Dieng mi ci waxtaan wu neex wi doon jàngale na moom wuy ji boromam en 2011. mbokk ñëwoon démb jërëjëf ba beneen Alassane Ndiaye Alou tey jii Cheikh Ablaye Dieng moo ko waxtaan si woon ci émission bi.